Alhamdulillah, wala asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi yëkkati ay kàddu nuyu ak ziara di ko jébbal bépp sénégalais ak bépp sénégalaise mais également suñu mbokku étranger yi nga xam ni ñooy dund ci biir Sénégal di sant suñu borom bu baax ngir ñu suturaalee ba ñu fekkewaat ñu alhamdulilah rabbil alamin di sant suñu borom bu baax a baax a baax. di yëkkati kàddu ziara di ko suñu kilifa diine yi xalif généraux yi ci Sénégal yëpp bépp kilifa diine mu ne ci Sénégal ñu ngi lay nuyu di la ziara jox sa wàccuwaay comme ni ñu koy waxee mais également di leen ñaanal suñu borom yàlla gën leen a bàyyi suñu kanam donc ñaan yi ñaan ci Sénégal yàlla na yàlla nangu yëpp te ful ko ñëpp ñu bokk di di yëkkati ay kàddu déwénati ko jébbal sénégalais yi di baalu àq bépp sénégalais di baalu àq waa Thiès di baalu àq ñi nga xam ne ñoom laa seqal liggéey mooy ci conseil départemental mooy ci ministère bi nga xam ne moom la président Macky Sall dénk mais également ñu ngi ko seqal ñëpp ci politique mais également ci gouvernement bi képp ku ma seqal rek maa ngi lay baalu àq di la baal àq ñaan suñu borom mi nga xam ne moom moom baale. moo mën a baal yàlla nañ yàlla boole baal yàlla nañ yàlla defal sutura yàlla nañ yàlla defal jàmm ci Sénégal yàlla defal def fi tawféex mais également li nga xam ni mooy moo lëmbi àdduna bi muy mbas mi comme ni nga ko waxee sànq te tey mu changé ma nga xam ne lu bëri loo xam ni moom la ñu tàmmoon a gis malheureusement am tey lu bëri loo xam ne mu ngi koy soppi ñu ñaan suñu borom mi nga xam ne woo ko wàcce ci àdduna bi ñu ñaan suñu borom moom yàlla na ko yàlla jeexal ak jàmm yàlla na dellu mu te bàyyi ñu fi donc yàlla yokk sutura yi donc wax pour la deuxième fois euh, mun naa ni tabaski tombé ak mbas mi ci àdduna mu changé lu bëri nag ci àdduna bi changé comportement yi changé doxalin yi changé même mode de dundin yi loolu suñ rek moo ko mën a wàcc ci àdduna ndax nag moom mi nga moo ko kon moom la ñaan donc euh, ba tax na kon ni nga

son excellence Macky demandé à ce que le gouvernement yëkëti wat bëpp bépp ak yëpp bëpp matukaay bu ñu ci première ak deuxième vague bi pour stopper propagation pandémie c'est dans ce cadre le président de la république ak kilifa fait yi wax ak euh, situation bi ni mu complexe nan le milieu def ba jëlaat matukaay yi ñu xam ne jëloon nañ ko muy wàññi daje dajo bi

ñu koy ziar di ko ñaanal yàlla na ko yàlla lu yag yag donc te yokk ya wërum wane nañ geste yi muy def ak nu muy wane exemple suñu wayjur señ Babacar si Mansour bu wawon xalif général ñepp gis nañ ban bas mi tàmbalee ba légui matuka yim ci jël ak taxawaay yim ci am machallah allah ci sante di ko ñaan suñu borom anu na ko yàlla bàyyi ci kanamu njaboot lu yag yag si ak suñu kilifa diina yépp ñu gis taxawaay yoyu donc niñ ko amee kon ñun ñi nga xam ni seen njaboot lañ ñun ñi nga xam ni yàlla def njabootu président Macky Sall lañ ci biir gouvernement bi mu wane yoon ñu war a topp ci yoon boobu. c'est dans ce cadre la ni ñun tamit muy Thiès ak ku nekk foo mënti nekk yàlla may la nga am fa baat wala kilifteef war nga mun a topp ci tànk suñu kilifa yooyu tracé muy président la république ak xalif yi nga xam ni xalif généraux yi nekk réew mi. li nga xam ne ñoom lañ yaakaar ci lu bëri donc c' est dans ce cadre que président Idrissa Seck moo xam ngeen dafa tukki mais man nga xam ni maa ko wuutu ci conseil départemental bi di ko jàppale ci liggéey bi mais également nekk membre du gouvernement man tamit defe naa ni war naa mun a ak waa Thiès partager ak ñoom yi nga disposition yi nga xam ni kilifay jël nañ ko mën leen a wan un exemple wan leen un modèle c' est dans ce cadre ci laa présenter sama excuse peut-être damay def prière à domicile comme ñi ko kilifa yu bëri defee wala nuñ ko dégalee te dans ce cadre ci laa jullee sama kër ak sama njaboot ak vraiment sama vraiment ñi nga xam ne ñoom laa ko bokkal ci kër gi donc wane aussi que vraiment modèle boobu tamit mën na nekk comme ni ko président la République defee ak yenn kilifa diine yi mën na ne modèle boo xam mën nañu dimbali pour arrêter mbas mi war a wàññi bu baax a baax a baax te tey Sénégal soxla na c'est dans ce cadre lañ ko défé di ña di gën a rek sénégalais di gëna ñaar sama bopp ñaar sénégalais yépp pour que ñu gëna respecter mesures barrières yi ndax tay ñaar mo fi nekk respect des mesures barrières muy moytu ak moytandiku ak benen bi moy vaccination té te ci côté vaccination bi defe na ne gouvernement bi ñu ngi ciy def jéego yu am solo président de la république sous son leadership gis nañu Sénégal jéego yu mu ci def ba am. Nous avons ni pays africain ont ëpp vaccin ci Afrique Sénégal ci la bokk c'est leur ci engagement président de la République bërki de moo ci 000 doses nañ Johnson donc Johnson and Johnson mu jóge États-Unis nous xam ngeen ne vaccin daf fi manqué mais loolu lépp su ko gouvernement di def président la République def pour l'art sénégalais. parce ba nous na kon tamit war nañ ci def jouer seen rôle jouer seen partition moy ñu respecter mesures barrières yi rassemblement wañi safonté mais également ñaar nit ñi pu ñu dem vacciné wu ci defe na ni lool suñ ko defee yalla mën nañu defal sutura ba mbass mi dina wacc ak jam inshallah rabbi ci Sénégal mais na ci aduna bi yow beneen bi ci dess wax nga ko conseil départemental bu Thiès ci première vague bi gis ngeen taxaway yi ci amone ñoko yalla sutural noonu nañu li nga xamni amul nañ ko comme moyen comme ressource ci conseil départemental bi bu dugulun nañ ko ci effort yi gouvernement bi doon def à conseil régional donc de de lutte contre les épidémies gouverneur moko done jité préfet département département de Thiès et suñu loxo loxo encore pour deuxième troisième vague bu wax ci suñu loxo def minimum 150 millions de francs CFA ren tamit pour ci suñu loxo muy ci mbiru masque ci mbiru matériel et également hôpital régional euh, district de santé même CTE bi xam nga équipement yu fu ëpp yàlla def na conseil départemental moo ko jënd pare nañ encore dugalaat suñu lox bu baax a baax a baax ndax lépp lu jëm ci luy aar waa Thiès luy aar waa Sénégal pare nañu luñ ci mën a def ñu def ko ci ndax la santé n'a pas de prix ba tax na kon ci loolu na ci seen xel dal xam naa ci fan yi di ñëw donc dans le cadre donc des stratégies défini et arrêté au niveau du comité régional donc de lutte contre les épidémies dinañ xool ak gouverneur ak préfet département bi nan départemental, def ba conseil départemental gën nous dugalaat ci loxoom li jëm ci xeex mbas mi ci département de Thiès ñuy sant ñëpp di gërëm asalaamaaleykum wa